lépp lu mu naalal lislaam mu àggale ko ànd ko ak njabootu Serigne Touba gi yëpp ak mbooleem kilifa diine yi di nuyu kilifa gu baax gi nga xam ne moom lañ nekk ci ab ëttam muy Serigne Hamsatu Mbakke ibnu Cheikh Abdoul Ahad ñaan yàlla sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko ba li mu yéene lépp ci defal ko maamam ci toolam bii di toolub lislaam mu defe ko ni mu ko bëgg ci barke Xaadimu Rasuul di am mbégte te jii nag mbokk yi ànd ak yéen. fii ci kër Serigne Hamsatu Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ci bis bii nga xam ne dañu ci fàttaliku jàmbaari lislaam di ci fàttaliku jàmbaari yoonu murit mu Cheikh Abdoul Ahad Mbakke Xaadimu Rasuul ci bis bii nga xam ne tey mooy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru Shawal nekk bis bi nga xam ne ci la feeñoon jamono ca pàkk bu sell bële di albuqaatul mubaaraka muy Jurbel mu nekk koo xam ne nag fàttaliku ko walla nafar ak dundam dana fàttali ndaw ñi jàngal leen fàttali mag ñi ngir dund koo xam ne dafa fees dell ak ngëneel waaye fees dell ak njariñ mu nekk model Cheikh Abdou nekk référence nekk idol ci bépp fànn nag ci lu ab julli di yittewoo ci lu ab taalibe di yittewoo waaye même humanité dañuy tudde al insaniya sëñ Abdou Lahad modèle la ca idole la ca référence la ca jamono nag laaj na toll na ci dello siwaat nafaraat ak dundam ngeen mu nekk bind boo xam ne des na ci mën a jàng Cheikh Abdou Lahad sunu borom daf koo waajal waajtaay woo xam ne dafa tàmbalee ci askan wi mu bokk tàmbalee ko ci njaxate gi nga xam ne man nga tudd maamam ju baax ja Mamadou Astou Diakhaté mi nga xam ne ku ne xamoon na ab taxawaayam ci diine lislaam ku ne xamoon na ab taxawaayamit ci diine nekkoon nitu alxuraan nekkoon nitu diine nekkoon ku sàmm nekkoon koo xam ne xamee su ko ci lenn lu mooy rek jàng ak jàngale ak dundal toolub lislaam bii ba bu ñu daan joxe misaal ci ku sàmm sax dañuy delluwaat ci moom moomu moo jëloon jabootam gi yëpp nag mu boole góor ak jigéen jébbal ko Serigne Touba Xaadimu Rasuul sëriñ Modou moomu nag moom meññi soxna Fat Jaxate meññi soxna Marema Jaxate Serigne Xamsatoo kilifa yu baax yooyu yëpp soxna Marema moomu nag di way juru Cheikh Abdou Lahad kenn ku ne xam ab taxawaayam moom it ci wetu sëriñ Touba nekk koo xam ne it ku gàtt aw fan la ci zahir waaye jëfam leer na ndax jàmbaar yi ko yàlla jox ci kër sëriñ Touba wane na ko ndax bu Chouhaïbou Mbacké alquran waaye Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne ku ne xam ne taxawaayam bokk na ci rek ñi nga xam ne dañoo joxe seen bakkan ngir nekkuk sëriñ bi ak bëgguk sëriñ bi loolu soxna Mariama Jaxate bokk na ci ñi ko def moo tax keroog bi mu génnee àdduna Serigne Touba da ne nañ ko yóbbu ca tànki soxna Aminata Lo ndax noo bokk ay mbir waaye tekki nag innaha fi maqaadi sidqin inda malikin muqtadir am na dañuy wax ne bu ma saa dugg ci sëñ bi sax bu ko nuyoo buy dellu gannaaw buy buy wàññiku day dellu gannaaw di maasale tànk yi ba génn kees gi kooku nag ak fa mu bokk rek ku ca meññ ko fu jaar noonu la war a mel waaye nag mu jaare ci ki nga xam ne doy na ci moom rek buñ ñee kum ne kun waxuma kuñ ne mooy sa way jur waxuma kun ne mooy sab sëriñ waxuma kun ne yéen a bokkum réew waaye bokk ak moom adduna rek sag la muy sëñ Tuubaa maag sëñ bi ñoo bokk monde bu ñuy dund rek tawféex la boo ko yëgee boo ko yëgut it xettiliku la ci yow ngir ni ko ki mu doon ak fi mu toll sëñ Tuubaa moom mu nga xam ne nag tagg woo ko bëgg a tagg rek la Cheikh Ibrahima Diop Almachir waxoon ne wépp tagg wuñ tagg nit ku baax muy tagg wu jot boo ko solalee sëñ Tuubaa tagg woowee jot ko fa kullu matxin baliixin xiila fi rajulin fa anta saaxibuhu yaa ayyuha rajul tagg woowee lu mu jekki-jekki ca kooka dëkku fa ci yow la dëkk yow sëriñ Tuubaa kon ñaar ñi ko seq loolu doy na ca misaal mu feeñe ci pàkk ba nga xam ne it mooy albuqaatul mubaarak di njaareem di béréb boo xam ne tubaab bi bi fi bi bi bi muy sàkku suñ tubaab dem fa am na lu mu ci jublu woon waaye sëriñ bi moom moo wax la ca xew raamu masiri ila jurbel la daal la sa sin la waayeno sira fi sayri ma raamu sàkku nañ sama jógee fële ca Thièyène jëm njaareem ci atum la sës di 1330 war a doon mu ne waaye buñ xamoon lañ ne ca dox ga jëm njaareem nag duñ ko sakku ndax dem gi njaareem moom yenti mbir rek lay jur muy ak dee ak toroxte gàcce ñeel nasaraan bi waaye mën nag tedd nga akuk sax la may jural te loola moo ca feeñ ba bi nekkee njaareem béréb boobu nga xam ne ca la waxee woon ne dinaa moo bi nga xam ne dafay leeral réew mi foofu la nekk muy njëreem ba muy wax ci lahu xitaab yi ama talsasin lada buqaati lati tunirul balada foofee la jumaa ji nga xam ne moom la jëkk fekke ñu inauguré ko tam waxoon ne mooy misbaax ahlu sama wa najaatu ahlul ard lamp waa asamaan mooy jumaay njeereem texeg waa suuf mooy jumaay njeereem foofee la suñu blaat feeñe ci Belses di 1332 war a doon 1914 bi mu feeñee it daje ngëneel ci bis bii di ñaar fukki fan ak ñetti Chawal ndax ba mu feeñee seere si sëñ ab sëriñ Touba waxoon rek doy na ci sëkk te loolo moo di fekku fi ku ko gën waaye bokk na ca it ci melokaan yoo xam ne wane na ko moo di kero bi ko sëriñ bi wutalee aw tur te muy turam wu sell wii di Abdul Ahad nga xam ne moo ko jëkk a tudd ci jamonoom keroog sëriñ bi def caa boole wax ne képp ku ko man saw yaram araamal na sawara kon moom rab moo ak xettalee la ëndaale jamono nga xam ne bis boobu mag ñi am na ci ñoom dañ koy bind lu mel ni ci ay pancarte di wax xoolal ma ba xam mën naa ko ñuy wax Abdul Ahad Abdul Ahad loolu kon doyoon na daraja doyoon na melokaan mu nekk koo xam ne it fi jaar ci xam-xam jaar ci kër nijaayam sëñ Xamsatu sëñ Alsan Jaxate jaar ci parcours am yëpp ba nekk géeju xam-xam boo xam ne ku dégg ay waxam dégg ay jëfam xam ko teel a sanc ay dëkk ci nekkuk Cheikh Moustapha al Karim teel a ngeme wéet teel a ngeme ab àll teel a dund ak tumuranke bam noppee gi sëriñ biit mu ne ñàpp ay kilifaam te moo di jaay lépp loo xam ne nii doxoon na digganteem ak sëriñ Tuubaa ci ak njureel jënd ko ak taalibe bi looloo waral ñuy wax ne la mu amee woon ci sëriñ bi sax muy nuru ndono da jëbal seex Cheikh Moustapha jébbaloo ko loolu kon jaayante ak taalibe la Cheikh Abdoulahat mel noonu topp Cheikh Moustapha ci ay guddeem ak i bëccëgam ba noppi koo gis mel ni kuy door a tàmbaliwaat ak laxasaay nag na dan Cheikh Mamadou Fadal ci ndigal ak sopp ak jëfe ak topp am taxawaayam bu rëy ban dem ca 1968 mu tooge jataayub Serigne Touba di ñetteelu xalifa Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ci jamono boo xam ne nag am na fu àdduna toll sëñ Abdou Lahad ñëwee ci nag doon dëgg nekk koo xam ne la sëñ Abdoulahi Jaxate radiyallahu taala anu doon wax ca bam nu koy portaleel ci sëñ Abdou Lahad rek na ci ndax ñoom ñaar waxuma bokk kii sëñ am sutu di way juróom kii di soxna Marema di way juróom waaye daa am cër buñ bokk am lu leen sëñ Tuubaa it boole moom sëñ Abdoulahi Jaxate tam nekk borom cër bu rëy loola misaal ma rek 1927 bi sëñ Touba di ñëw Touba guddi googu sëñ Abdou Lahad mook sëñ Abdoulahi Jaxate ñoo bokk benn néeg bu ñu nekk waaye sëñ Abdou ko waxal boppam ne ko ku tedd kaa ngi mi ngi ñëw Touba mu ne ko tëddal ndax booba dañuy bañ sëriñ gi leen di jàngal dégg leen waaye sëñ laay neen ab diir yëgatul na sëñ Abdou ngi ci lal bi waaye mu dellusiwaat ab diir ne ko dem naa ca ba ñëw wane fii ñu ko denc ci xay gi fi mu nekk bi ko sëñ Ablaye laajee loolu loola ko xamal dana ko xet géem a xeeñ te sëñ bee leen bëggee la woon it bu seen kaamil noppee danaa leen bëggee la ñëw Touba te loolu dëppoo moom moo tax ba mu koy marsiyaal di ko misaal dafa wax ne cheikhu abdul ahad taqdimuhu jamula waxtasawullah bil fadl lati kamula faqrul muridina man afda damasatuhu li ali walidum anhuma kasila kaafin asisun karimun daama yun ashuna lam yuxnihi magnamun anna wa ma fasila bi wabli juudin yaxiisul mar aj sulaha ma naala ma raama man yabqi lahu masala nee na sëñ abdulaat jiitoom bi dafa rafet sëñ abdulaat mooy sagub murid yi mooy ki jël dundam gépp jeexal ko ci liggéeyal way juróom wa ak njaboot ga mooy ku doy ku mat koo xam ne dafa ñu daan dimbale waaye lam yuxnihi magnamun anna wa ma fasila sëñ abdulaat ku giijal ba riche yor lu dul jeex ak ku yoru dara moo yam ci moom xàmmeewul ku giijal ak ku amul dara ndax lu tax bi boobu li juulin yaxiisul mar ay sundaxa ci waameew ngëneel lay dotti ci ku bayyi koo fu ne ñëw fi moom waaye naa la maa raama man yëpp xii lahu masala booy wër adduna ñu ne looy seet nga ne damay wut ku mel ni Sëñ Abdou Lahad Sëñ la Lahad jaxate nee na mënoo koo gis ndax ku mel ni Sëñ Abdou Lahad amut daal na mooy koo xam ne nag yum naahu bahru nada yurdil aadi wa yoxtil xibba ma amala nee na nday joor sëñ Blaat géej la waame la wuy dottiku ci képp ku sàkku nga leen waaye nag càmmooñam ba jaasi la ci képp koo xam ne rek dangaa ñëw ngir leneen kon basun wa basun li man laanu wa man jaaru loolee mu doonoon kilta yadihi ji ci rasulillahi loolu la doon yum naahu bahru nada yusrahu sayfu rada yurdil aadi wa yoxtil xibba ma amali aji soppi bi nga xam ne dafa tege ci yoon bu ñëwee ndeyjoor bi la koy dottee muy yiw waaye aji fetteerlu ju nag càmmoñ ba mooy jaasi mu ne ko yow Sëñ Abdou Lahad kat yaa nihmatallah fil afaqi jumlatiha yaa man ka fi'laka lil ihsani ma fa'ila yaay xéewalug yàlla gi ci kaw suuf yëpp yow Sëñ Abdou Lahad nga fépp yaay ki nga xam ne saw tur saw tur daj na jamono bu nekk yow Sëñ Abdou Lahad ba yàgg ci ne ko nag utamta min jannatin taaman xalaawatuhu ansat ka taaman li maa xat kaana xablu xala yow kat leelal nañ la ñamu ajjana woo xam ne moo la fàtteloo ñami adduna yi nga xam ne loolu sëñ Abdoulaye Jaxate fekke na ko te sëñ bi berndeele leen ko teg ko ci seeni ténk mooy lu ratax lu tem-tem yi lu neex sëñ Tuubaa na naa leen musal fii ñamu ajjana bala ëllëg moo tax sëñ Jaxate way ko na ko utimta leeles na min jannatin ajjana taaman xalaawatu ansat ka taaman li maa xat kaana xablu xala ndaka neexaayu ñamu ajjana wooye ñu mosaloon sëñ Abdoulaye moo tax mu fàtte woon ñami àdduna yi bànneex bi xam xàmmeewul lu forax ak lu wex lu mel nangam mosu koo xàmmee ndax guu bi mu doon sentir ci ñam àjjana wi ko sëñ Tuubaa kooku mooy sëñ Abdou Lahad Mbacké mooy ku nga xam ne taxawaaye mbuuré bi mu am bépp mooy liggéey lislaam toogee jataayub sëriñ Tuubaa it def li ko war lépp yokk jumaa ji autoroute bi daaray kaamil université bi waaye yemu ca sëñ Modou Mamoun ñang nee na xamaa madinatu Touba zaadaha sharafa wa am al ahla wal jiraan wa nuzula moo aar Touba dolli ko tedd nga aar dëkk ba aar mboole marché ya génne fa lépp loo xam ne sobe la ak bokkaale moo tax tey gisoo ci dëkk bi ñu ne fii bérébu fowukaay la amul bérébu jaayukaay lu ñuy tere amul nangam loolu ku ko def mooy Cheikh Abdoul Ahad mooy ki aar dëkk bi sàmm ko ba loola mën faa nekk Cheikh Abdou Lahad moomu nag moo tax am ku ne ko yàq di mu bi taj jii dii diini la yàq di mu cheikhahu ci yeesal lislaam lay liggéeyale jëmmi way juróoma Serigne Touba lii nuy jàngale tey it mu raw ci ñëpp mooy li ñu tudde kennal Serigne Touba mi nga xam ne léegi-léegi borom dégg ñu gàtt yi naan kennal yàlla laa ci xam saa yoo ko waxee rek yaa ngi wutal yàlla ndenn saa yu ne kaani boo fa tuddee suukar yaa ko wutal ndenn xam nañ ne weex la ñu wax muy kaani xam nañ ne am xam nañu suukar yàlla kay mooy ki yóbboo baqeex di raye ko woppale eh, sëñ Tuubaa day kenn amul moroom te moom moo waxal boppam afradanil baax yi yàlla ber na ma may kenn moo tax koo ne ma nga naan kennal yàlla laa ci xam yaa ngi wàccee dara jàmm ndax xam na ne yàlla kenn waaye moroomum sëñ Tuubaa fu moom football ba ña ca dàq football kenn lañ ndax miir nangam lañ leen di wooye ña dàq basket nangam lañ loolu nekk ca jiitu même fecc ka la ko daq def kenn la ca fecc ndax la ko daq ka la dàq bëre kenn la ca làmbi lislaam nag ki ci daan ta man ci mooy Sëñ Tuubaa moo tax muy kenn mat xon na bi xaadalii maalam yura shakkili wa fi daari shakkili lan yura lekkoon kennam gii nag bu la jaaxalee da ngay wuti moroomam ba xam da nga ko gis kon moo tax ñu naan Sëriñ Tuubaa kenn la loolu lañ ci jublu mooy dee sa gisut moroomam waaye xam nga ne dee su yaakaar Sëñ Tuubaa di ko bëgg di boole yàlla kenn ndax Sëñ Tuubaa nee na nahnu lazina laa naluutu abada ila bi rabbina huna suma gada moo tax a waxtaan am nga a waxtaan waaye mënoo fexe ba du duñ wax sëñ Tuubaa kenn la xanaa ki sëñ Tuubaa kenn la ñeenti baat yi ko gën a rëy gëm ak wóolu ak yaakaar ak ragal sëñ Tuubaa lañ koy def te ki ko wax moo raw ñëpp jël nañ seen lépp jox sëñ Tuubaa it buñ koy wax sëñ bi la da ko bind tey ataytukal yow ma bi leen xitaa kulliyat yi yaa xaadimal mataa jox naa la sama lépp yow sëriñ Tuubaa ci lu amul ak dog jël naa sama bopp ak sama alal tabbal ci sa jiba yow Serigne Touba loolu sëñ bilaat moo na ko jàngal jàngal nu ñuy gëmee sëñ Touba jàngal nu ñuy wóoloo sëñ Touba jàngal ñuy liggéeyale Serigne Touba loolu sëñ bilaat lañu ko jàngal sëñ bilaat moom it dafa ñëw incarné loo xam ne nit ku ñuul ku nekk wala doomu aadama bu nekk li ma la wax war na caa jànge ndax tey jii bari na mbub moo xam ne ku ko sol bàyyi laxaat la ñuy wax bàyyi laat lu tax mooy dafa xam lim doon wane ko te bu masaa yëkkati discours am di ko wax ñëpp lay tàbb ci seen nopp mën a ràññatle xam nit ñi fi mu leen di teg ak ni mu leen di joxe ñi Serigne Touba ak li mu leen di jàngal Cheikh Abdou Lahad moomu nag dundam gépp daf jeexal ci liggéeyal Serigne Touba taxaw njabootu Serigne Touba gi nga xam ne koo ca jàpp sax da ngay jàpp ne moom la gën a fonk moom la gën a bëgg sëñ Mouhamadul Mamoun doom Cheikh Abdou Lahad la moo ma nettali ne sëñ am na bis boo xam ne sëñ Abdou Lahad dafa jël addiya bari na joxal ma ko Serigne Chouaïbou bu mu ñaanal ma ma gën a bëgg Serigne Touba nga xam ne la muy wone rek mooy ak bëgg Serigne Touba loola moo tax mu xuus ci àdduna liggéeyal fi yàlla jaamu fi yàlla ba ràññi ko fi moo tax bi mu génnee àdduna bi ko alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh di martial bokk na ci kañ wum ko kañ ak bakk wum ko bakk alaaji Abdou dafay dafay tagg Serigne Blaat ba yàgg mu ne ko ab rayta baxdaka maddaxan aylamal olama yaa ajwada naasi turan mufradal bi dana ko gàcce ngalaama bàyyi nga aw tagg sa ginnaaw aw tagg wu rëy nga fi bàyyi yaay borom xam-xam bi yaay borom tab gi yaay koo xam ne fa nga ne kenn fekkul fa yu Cheikh Abdoulaye daan na ko waaye fa aba yashkurukum kam-kam wa kam wa kami ko Alaaji Abdu Si wax na ko bari na ko wàcc sa ëtt ba doon borom njàqare wala borom mu buy ñibbi day giijal ba day sant bari na bari na na ko kulla ma xat kaana mun hadima min ba'di walidikum yaa safiya siyami mboolem nu màbboon sa ginnaaw baay yaa ko tabax yow sëñ Abdou Lahad yaay borom jikko yu sell xàmmeewul buur ak baadoola aw fitam na rek la nga xam ne dogu gim dogu ci moom képp nga mas a gis mu mën a joxeñ buur mën a teg buur ci dëgg mën koo wax ci aw yoon ngir dëgg nga nekkoon ci way juróoma Cheikh Amadou Bamba xaadimu rasul te loolu wane na ko ci doxinu biiram wane na ko ci doxinu bitteem ba adduna bépp respecté woon ko moo xam muy jullit moo xam ku doonul jullit moo xam muy murit moo xam ku doonul murit ñëpp ko ëmbaloon ak cofeel ñëpp ko jàppoon ñëpp ko bëggoon waaye dafa doxoon doxiinu rek ku dem ma dem ku demul ma dem te dëgg du soppi ko ay nen gis nit bu nekkee ci dëgg day ñeme lam nekk dëgg moo dul ay caaxaan. adduna nag ginnaaw yàlla miy def du la tàggu bu lay may du la ko wax bu lay xañ du la ko wax bu lay rey du la tàggu yàlla moom mooy boroom dogal bi ab jaam bu ko xasee gëm waratu la ragal kenn waaye sëñ Tuubaa mii nuñ ko def doyut sëñ nuñ ko def doyut kuy tedd ngir moom nag war a mën a ngir a torox ngir moom dañuy jël oto may la ngir sëñ Tuuba di la may kër ngir moom di xotti bu la jox ngir moom boo ci mënta incassé wu saaga nag loo bëgg a doon warees na la ca pes di la ca bañ di la ca saaga ndax dañ lay teral ngir moom ndab li ngay lekke sax ci ngay fot wala nga daje ci xeer mu ne sa bañ kuruj te rekk nga bëgg te loolu dalaa war am nge mee tax ak nge affronté ginnaaw ku jikku ci dëgg la ko jaral sàkkaama ki ne ci dëgg baat bi waxtu wu ne nañ koy saxal sëñ Tuuba moroom kenn la sëñ Tuuba fi man sëñ Tuuba fi raw loolu nag bu ñu nee sëñ Tuubaa def na nangam au lieu que nga naan li ngeen di wax bàyyi leen ko boo amee ko ko man da koy indi boo ko mun nga ne miig loolu rek la sëñ julli ci géej gi amoo ko julli ci géej gi bu jullee ci tefes baax na sëñ Tuubaa demoon biram ndar bu sa kook demut baax na loolu lépp waaye wutal loo wax waaye bul dindi liñ wax te fen yi woon ci réew mi sëñ Tuubaa ko mabbu ci dëgg damay wax ne su ñaari mbër bu jeexee komba bu komba ba jeexee sax boo demee ci menn mbër mi di ko laaj naan ko xeex bi nu demee woon ak sa waaye ndax kaawoo ak nangam danaan touché na ma mooy laal na ma touché na ma tubaab bi du nettali suñ tubaab dëgg ndax jaket fàtt la ko def nit mënoo roofanteeg moom galgal mu boot la na la ci suuf fàtt say yuux féroogul ngay wax ci moom lu rafet moo tax nag la koy firndeel mooy jëmmi sëñ bi ci bopp moo waxal boppam hadamtuma banaahu kullu man jahat minal fira bi xul walaw ahad ay fen ak bokkaale yàlla laa fekk ñi fi nekk saxal ko ma dajji ko taxawal na yàlla képpay buur xadamtu bil ilahi bu yetal fira wala ulaahi abadan man kafara moo tax boo mënta wax li mu wax bëgg a wax lu keneen wax doo ko mën a atte te moom ay waxamay dëgg ndax moom bakkan yóbbuwu ko ci adduna yóbbuwu ko ci sëñ Tuubaa moom képp lañ mas a gis sël ku def lim def wëral ci adduna ba xam da nga gis ku mel ni Cheikh Abdou Lahad amul penk amul saw ku mel ni Cheikh Abdou amul mënoo koo gis kon nag jàmbaar ji ñu daan joxañ sëñ Tuubaa ndaw ñi war nañ cee royaat jàngaat ko ci xam ne nag wa saxatul mii daan yi laa yux fiiha iba u namlatin sulukan naaru góor yi fi ñuy jaar mu rajo rajoo am embouteillage oto yaag ñëpp dafa jaar xorondoom ne ci ruqam na dong naan man jaaruma ci mbedd mi du tee pënd na kur du tee mbedd mee xat te kalla wala yu danisul mu taxara xawlu sawi danasi maa ta taxara asamaan sii buñ fa takkee ab perkaal nga toog fi suuf yoru huile di ko wiccax ngir bëgg koo taxal say gët ay yàqu ak say yére waaye waxi ko bon mënta tilimal li set te sëñ Tuubaa salim a afati jumlatiha waman ni fooqan bi ma imanihi masar ab noon mënu koo gàkkal ab soppe mënu koo gàkkal wëral sëñ Tuubaa dundam gépp af nal xayaata bi ma yurdi ilaahu ma yurdi rasula jaa ma mafrudu na ay xëyam ak ki gontam ba adduna lu mu gën a yaatu tey noonu yi gën a bari tey pexe yi gën a bari sëñ Tuubaa gën leen a déranger virgule mënuñu ko gàkkale sëñ Tuubaa moo tax léegi-léeg nga dégg ko ne Sénégal réew la moom boo fi jàngalewut alxuraan boo fi dee jàngale alxuraan wala ngay wax sunna luñ la gëm boo bokkut ci génn kër mënuñ lay gëmee yow réew mi nga juddoo sa maam a ngi fi woon bi ni xare lislaam bokku ci kenn mës a jàpp sa maam ngir daa sa maama daan négocier ngir jubóog tubaab bi sëñ Tuubaa ak mel ni moom taxaw joxe seen bakkan ngir islaam sëñ Tuubaa sel mucc dellu si waat wax ne yow yàlla day xi asil ajila bil bishri ma madadi ata uximali diini lay arkana kenn yu lislaam taxaw mu indi sunna su leer yow sa sunna di financement ak sa diine joo xam ne négociation la nga jàpp ne mën nga noo convaincre loolu tax gëmunu la ndax da nga amul maam sa maam daa melut ni sëñ bi mel ni sëñ bi mel ni sëñ bi sa diine yi bopp mënoo ñoo convaincre dañoo lànk ñun sëñ Tuubaa lañ ne nikk sëñ bay jaxate ne alhamdulilahi nun am nañ sëriñ bu nu doy bu nuy fegal lépp lëf loo xam ne bëggunu ko moo sedd ab xol te dal am xel te buuri gëti te doy sëriñ sépp ak yéefari kenn yebu ko kii lañ am moo tax ku bëgg nu dégg la da ngay ñëw fi ne marché bu ñuy jaay dàng na ku fa jaay óol boo jëlul yaa ko yóbbee sa bopp kon maa ngi leen di gërëm di leen sant di sant nag sëñ am satu mii nu ñëw këram di gayndeeg sëriñ Touba sëñ am satum sëñ Abdou Lahad mii nga xam ne woyof na toy te dis gan te kat man de barki dem bi mu ñëwee sama kër nettaliwaat nañ ko sëñ Fallou Gala si la toog ñëpp toog sëñ Abdou Lahat waxoon sëñ Abdou Dieng Balla Fali yónni ko ci sëñ Amsatu mii na ko boo demee ne am na ngërëmul sëriñ Touba sëñ Abdou Lahat ko ko waxoon moom sëñ Amsatu mii am na ngërëmul sëriñ Touba moom ma wax ci làmmiñu boppam it na ma sëñ Abdou wax ne naa la ñaanal nga yegg te dara la dog loolu moo ma ko waxal boppam nga xam ne nettali ma ci yeneen yu gën a xóot yu gën a biire te sëñ Abdou Lahat ko wax sëñ ba mu ko waxee ne ko yàlla gërëm sëñ Tuubaa am nga ngërëmul sëñ Tuubaa it daal laxasuwaat toppaat ci ginnaaw sëñ sàkk juwaat ngërëm ba amaat ngërëm loole moo tax taxawaay bii mu taxaw ak melokaan yu mel mu mel na mel nga xam ne gaynde la goo xam ne ku ko xam ci dëggu nga ko xam ci jub nga ko xam ci sell nga ko xam ci donn Serigne Touba nga ko xam donnu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké nga ko xam am yéene lool ci sàmm ndonol Serigne Touba lii nga xam ne moom la fi bàyyi loola nag waxewu ko rek waaye da ko def ci jëmmam ba ku ko gis xam ko mu waxee ko ba ku ko gis dégg ko loolu mooy am Amsatu mi moo tax ñëpp ñi bëgg sañ Tuuba te yoon wi ñor leen sëñ am sëñ Amsatu kenn mënu koo xas ci nangam wala nangam ku ko wax rek dara yoonu sëñ Tuuba wi nga bëgg laal mu attaqué la ndax moom jëmmi boppam sëñ Tuuba la ko jox amu ci jeneen yitte kon yàlla ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla dëgëral ba lim naalal maamam yéene ko ko liggéeyal mu yeggale ko fi mu ko bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala